ëpp solo mooy lan la ñu war a def pour que yu mel nii du am parce que quand bu dee da ngay waxal yàlla rek tàmbali nañ di fi gis loo xam ne musta am ci wàllu politique ngay jongante ngay xëy di taal këru nit ñi suba ngoon guddeeg bëccëg ngay xëy di yàq alalu jàmbur suba ngoon guddeeg bëccëg loolu politique bi dafa commencé jéggi dayo mën nañ nekk adversaire kenn ku ne xëcc jëmale sa boor ne maa mën maa gën a baax waaye waruta yegg ci boom wala faagaagal wala yàq te loolu nag dañ ko commencé ràññee moo tax day baax ñu taxawaat yeddaat suñu bopp ndax ay jamono gënoon na fi métti jaar na fi 93 jaar na fi 2011 jaar na fi kon lu tax tey 2024 ñu bëgg rek ne Sénégal mosul am dara ñi fi ne musuñu baax nañu ëlbati réew mi loolu kenn ku ne ci ñun daf ci am wàll état dafa am wàll ci sàmm kaaraange nit ñi ndax li may seetlu mooy léegi nit ñi dañuy ragal ba nga xam ne bésu élection bi sax nañ ñaan yàlla nit ñi génn voté ji ndax tension bi ni mu mel mais beneen mbir bi mooy ñun ci suñu wàll bopp ñu seppi lépp loo xam ne politique politicienne ci li ñuy dund ci li ñu bokk muy institution muy renforcer démocratie loolu nag euh, kenn ku ne am na ci taxawaay dinañu wëy di waxante suñu biir di wëy di yeddante suñu biir ba nga xam ne li ñu am yéene pour suñu réew te mooy Sénégal dëgër mu mën a ne ndax balaa nga naan naam ne fa te suñu amul jàmm wax dëgg yàlla dina metti ci kenn ku ne ci ñun jërëjëf